wuute àdduna wuute dundin wuute ngëm-ngëm bokk bëgg-bëgg. Dikkoon. bi am jabar tàmmul génn nopp fecckat bi daw si fecc rek la def métier. ñu dépendre ci sama papa moo ne bàyyi mooy imaamu ratib bi. léegi su guddee lan ku nekk nga fréquenté ko mais man bi woykat bi mu gën bëgg. jabaru médecin bi mooy magam. booy daraa ak dikkoon. ku leen génneewul groupe bi mooy tas. nan la ñu nar a dundee ak fu muy wér. gardez ci coow jaayante doole tegante xel. dikkoon kan moo la def lii. yaay xaw sax ku xaay. su su li bukki tuuti feeñ. lu bari nëbb. sama papa la moo tax mu dem prison. ndakate doole xol nii la toll. dugg naa ci yow. dikkoon. tey nga mën a fecc mbaa nga de mbaa tànk bi dem